mbokki taalibé yi ñu ngi fii ci ONCE fas yéene waxtaan li nga xam ne si mooy suñu mbokki taalibé yi fas yéene waxtaan ak mbokki murid fas yéene waxtaan ak ñi ndax lépp safar kon dañ def lu dul waxtaan suñu mbokki taalibe yi laaj leen li nga xam ne si ne moo jëm ci wàllu 18 safar kon sama caméraman bisimilah. tey ñu wéyal émission bi fekk suñu mbokki taalibe nii mu taxaw ku baax ñu ngi lay ziar. delloo ziar. mbaa yaa ngi am jàmm. waaw ñu ngi sant bu ngi waajal màggal gi. waaw ñu ngi koy waajal bu baax a baax. yow fan nga dëkk. man Diourbel. Diourbel ci fan. kër gu mag. yow nan ngay waajale màggal gi ak nan ngay dund màggal bi jamono bi ñu nii. waaw màggal gi moom kenn ku ne moom da ngay natt sa bopp rek la suñ Tuubaa defar xam nga nga waajalee noonu màggal gi wala yow fi ne lan nga man a xalaat tey ji loo xam ne si ne tey ji maanaam mu mel ne tey ji bu ne màggal gi jub si na safar maanaam tey ji lan ngay lancé mbokk Sénégal yi nga xam ne si ne ñoo nekk fii ci Argentine waaw moom ñu góorgóor rek xam fañ jóge rek xam liñ doon waaw li ñu sëñ bi defal ñu fay ko ko rek waaw loolu la loolu mooy loolu mooy la am solo waaw kon mi ngi lay jaajëfal sëñ laay ñu ngi lay bëgg bër lan ngay lancé appel maanaam mbooloo mi nga xam ne si ne nekk fii ci Touba Argentine waaw mbooloo yi moom ñu góorgóorlu lu ñu am jàppale waajur rek xam ne loolu rek moo ñu tax a jug leneen doxu ñoo jug suñ fi noppee am loolu rek demaat fañ jigoon loolu rek moo ngi solo liggéey góorgóorlu sa waaw sa yenente jàmm daal bëggante di dimbalante suñ biir loolu moo am solo waaw loolu moom am solo waaw. ñu ngi lay jaajëfal sañ Laay ñu ngi lay bëgg bu wér jaajëf Mouride. salaamaaleykum ku baax. waaleykum salaam wa rahmatulah. tur bi naka la. man Cheikh sambu laa tudd. mbokki fan. mbokki Touba Gaar bu Ndaw. sëñ Cheikh kon tey ñu fas yéene ñëw dalal la ci nga xam ne si ne mooy émission bi nga xam ne mooy Touba TV fas yéene waxtaan yow li nga xam ne mooy si màggal gi yow Baye seex nan nga fas yéene wàcce magal gi. waaw màggal bi de moom comme ni ko taali bi yëpp fas yéene rek comme ñun demuñu Touba fu ñu nekk suñu Touba kon ñu fas yéene ko màggale fii ci Argentine di ko waajal di ci jéem nag lépp lu ñu lépp lu ñu am ndax dégg naa ci ku baax ci màggi taali bi lépp loo bëgg mu yomb la rek def ko ci màggal gi kon moom te sëriñ bi daal ñun kon lu ñu am yàlla ak sëriñ bi la kon lépp lu ñu am rek daañ ko ci def incha daañ ko ci def suñ kam laay kàttan waaw di ci soññ mbokk taalibe yëpp nag ñu def ko ci ndax ñun murid màggal gi lañu am mooy suñu bis waaw. kon Baye Cheikh ñu ngi lay jaajëfal. waaw di la laaj nag maanaam ci wàllu sas yi. ak wàll yi nga xam ne si ne mooy dem ci wàllu teraanga yi. ak wàllu xéwal yi nga xam ne si moom def ci wàllu saal bi. ñu ne képp murid bu ci nekk da ngaa war a joxe 4000 pesos. yow léegi nan nga ko gisee. waaw sas yi de moom sas moom lu war la lu war la. te jàpp naa ne kenn ku nekk bu xoolee bu ñëpp def boo peesee sa bopp xool ni bu ñëpp defoon yow yëf yi dox loolu rek doy na sëkk quoi te jàpp naa kenn ku nekk sëñ bi defal na loo xamante ne bii mu ëpp 4 millions yu ñuy sas wala 5 millions yu ñuy sas kan kon 5 millions bi ñuy def kooku waruñu koo xool quoi waruñu koo xool kooku daal képp ku dib taal bi nekk fii moom li ñuy sas yooyu moom war ñu koo wax moom naan saal baag lu ñuy bend ak yooyu moom lu ñu war a teg fee la moom leneen kay la ñu waaye loolu moom ndax mboolem ku fi nekk sëriñ bi jox na la ko kon tuuti la nga cey def moom loola lu ñu war a mën a def la te ku feeñ it nga raw ku bëgg a raw ci say maas danga nga ci ciy feeñ ndax sëriñ bi moom ku ko defal loo mënul mu defal loo jomb kon loolu rek euh, jaar na góorgóorlu ci bu baax a baax a baax waaw ma daal maa ngi ci sama soññ sama jërëjëf ñu ngi jaajëfal bu baax jërëjëf jërëjëf ñoo ngi leen kum rahmatullah maa ngi tudd Modou Ndiaye may fii nii Touba Argentine maa ngi euh, nuyu waa Sénégal yëpp te di leen ziar di leen wax ni ñoo ngi ci ay màggal gi eh, di ko fas yéene defee comme ni ko sëñ bi digle woon ci wàllu jàng alxuraan eh, jàng xasida bernde eh, comme nekkuñu Sénégal tamit waaye ñi ngi jéem suñu kéemtalaay kàttan di ko àndandoo mbokki taalibe yi di ko def comme ni ko sëñ bi digle woon di woo ñëpp nag ñu ñëw jàpp ci ci bis bi te xam ne bis bi tey moo ñu may ñun lépp luñ mën di am bis bi moo ñu ko may waaw ñu woo ñëpp di ziar ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw ba léegi ñu nga wéyal reportage màggal gi fas yéene gisante ak sunu mbokk taalibe yi ñu wax ñu kenn ku ci nekk li nga xalaat ci màggal gi waaw sëñ bi ñu ngi lay siyaar. day doole siyaar suñu daam. mbaa yaa ngi si jàmm baax. maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. tur bi naka la. Aliou Thiam lañ koy wax. dëkk fan. dëkk euh, Kër Manongo ñu gën kaa xam ci département de Nioro Sénégal. waaw yow léegi noo xalaate màggal Touba gi ñu ñu li ñu ci wax mooy dañuy sant yàlla bu baax parce que bisu sëñ Touba bi moom kenn lépp lu ci waaye def lu nekk rek sa bopp nga ko di ñaanal yàlla rek ñun ñëpp ñu yegg si jàmm fekkee bis ba ñun ñëpp ñu teew sama mbokk taalibe bàyyi ñëpp ba ngi leen di wax ne leen ñun ñëpp nañ leen simmeeku ñëw jàppale suñ mbokk murid yi bis bi nga xamante nii mu ngi waajeeg si si jàmm ñu fas yéene ñëw rek jàppale na yéen ñëpp si bis bi fexe ñëw ànd ak si yéen si bu soobee yàlla incha allah. jërëjëf kon ñu ngi lay siyaar bu baax di la jaajëfal waaw di la woo ci 18 safar bi ak say mbokk yëpp jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal sa kàddu gu mujj lan la lan ngay soññee ci nga xam ne si ne ñooy suñu mbokk taalibe yi maanaam wàllu sas yeeg yëpp. waaw wàllu sas de li ma ciy wax mooy affaire yi moom ku ci nekk maanaam nga jéem see def sa képp lay kàttan te xam ne bisub sëñ Tuubaa bi lépp lu ci waaye def rek doo ko réccu bëri na si ñoo xamante ni tey jii nii buñ sañoon Tuubaa lañ koy def jee waaw te boo ko defee Tuubaa dañ ci def loo xamante ni maanaam bu nekk boo nekkee fii war ngaa mën a def loolu boo nekkoon tey yi nga nekk Tuubaa war nga cee mën a def loolu kon nag kam sas yi nga ngi koy sas ñu jéem kaa defar ñëpp joxe ci li nga xam ne maanaam sas bu nga xam ne sas nañ la ko parce que buñ la ko sasut fii tamit dañ la ko sas Tuubaa te li nga nar joxe Tuubaa comme que dem na nañ fexe lekk fii mu ñu teewal ko ñu yeggale suñu bis bi si commencé ko alhamdulilah rabbi yeggalee ko ci commencé ko bisimilah rahmaani rahiim yeggalee ko alhamdulilah rabbi alamin waaw. jërëjëf kon ñu ngi lay jaajëfal. ok jaajëf sëñ Dame. jërëjëf man la Ndiaga Matar Ndiaye dëkk Darou Minam Gelongal ñoo ngi fi Argentine di waajal euh, maggal bi bisub seriñ Touba yi bis bi nga xam si amuñu lenn lu dul moom ñun murit buñ goree bis bee tax di wax na ñëpp ñëw ñu waajal di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba demuñu Sénégal na mais sunum xel ak sunu xalaat lépp ma nga di wax ngeen fasaaleel ñu ñun nag ñu ngi koy waajal fii comme ni mu waree ngeen ñaanal ñu baax jërë ngeen jëf yéen tamit ngeen fas ci kontaan nañ bu baax vraiment kontaan nañ jërëjëf di ñaan waa Touba Argentine TV sa kaw sa kanam jërëjëf ngeeg euh, suñu beneen bokk taalibi nii jër ñu ngi lay ziar waaw delloo ziar sëñ daam maa yaa ngi am jàmm bu baax waaw sant yàlla wér tur bi naka la man Fallou la Fallou Ba. mbokki fan Sénégal. Caaroy bitigu Bamba. Caaroy waaw. sëñ bi nan ngay wàccaay màggal gi. ah màggal gi kay comme ni nga ko daan waajee rek isaan yi pere nañ isaan yi xaar bis bi rek la def moo des. ci ban fànn nga waajalee. ah ci wàllu maanaam jàng xasida jàng alxuraan comme ndaxte sëñ bi moo ne su màggal ñëwatee rek sant leen ma ci sama borom wax ni àjjana de amul bis waaye waxtu màggal Tuubaa saa bu ñëwee see rek ñu xam ni bisu màggal si na daal kon nag dañ si jàpp bu baax. waaw kon yow tey moom suma ma déggee sa wax daal mel na ne kon tey fii ci Argentine yaa ngi waajal li nga xam ne mooy 18 safar bi yow nan koy wokkee ak nan ngay waxee sa mbokk taalibe yi ñu waajale ko fii ci Argentine waaw xanaa waajal rek moo xam lu ñuy laaj moo xam wàllu teg cotisation lépp lu ci waaye mën a def na ko ci def te Serigne Saliou Mbacké de daana faral di wax naan maanaam màggalu Touba ñaari kër dend kii fonk kii gëñ koo fo kii bañ kaa fonk ki ko fonk maanaam dina gis li mu rawee ki nga xamante ni fonk ko nga xam ne kon màggalu Touba ñàkk ko bañ a fonk wóorut ndaxte Sëñ waa ci lañ ci lañu ci lañu ci dimbalee ñun waaw ñun doonoo war a sant Sëñ Tuubaa bu baax ndax amuñu lu gën màggal gi waaw jërëjëf sëñ Fallou ñu ngi lay siyaar bu wér ñu ngi lay jaajëfal rek ñu leen di wéyalal seen émission Touba TV ñu fekk ba tey sénégalais yaa ngi nii taxaw waaw sëñ bi maa ngi lay siyaar asalaamaaleykum rahmatullah asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi eh, ñu ngi leen siyaar leen nuyu yéen ñëpp kenn ku ne turam ko santam maa yaa ngi am jàmm bu baax ñu ngi sant bu baax tur bi naka la man maa ngi tudd Pathé Diouf dëkk Ndiarème Kër Cheikh Ibra Fall nekk fii ci Argentine di waajal safar gi bu baax a baax na ñu ngi koy waajal baax di fas yéene góorgóorlu bu baax rek lépp lu ñu defoon ñu gën koo yokk ngir Serigne Touba. man yow nan ngay safar ak say mbokki taalibe ak say mbokk yi nga xam ne si a nekk fii ci Touba Argentine. waaw ñun moom ñi ngi ci wax dëggante yàlla saa su nekk boobu ñi ngi ci quoi ba weeru tere ba léegi daal ñi ngi ci ñi ay benn di joxe fañ dëkk ñi ngi jox def ay benn di joxe am mbokki taalibe yi encore incha allah tam màggal bu ñu àggee jàmm ci kàttanu yàlla fas yéene jëf jëf ju am solo rek yoo xamee comme ni ñu ko daan def rek année mu nekk rek mboolem ñi nga xam ne nekk nañ Argentine xam nañ loolu ñu nag mhm. mbokki taalibe yi uh-huh. kenn ku ci nekk ñu ne murid bu ci nekk sasoo nga 4000 pesos uh-huh. yow léegi ma lay laaj nan nga ko gisee waaw maam 4000 pesos yooyu euh, ñuy sasoo ñun daanaka yàgg nañ fi Argentine parce que maa ngi fi def 12 ans fii ci Argentine quatre mille pièces yooyu ñu sax bu soow yàlla moom dañ koy dañ dañ koy romb dañ koy ñaraas maanaam quatre mille yooyu moom parce que dama daan dégg sama baay ca njaaram kër Seydou dañ daan wax ne sëñ bi bu sasee bu la sasee cent da ngay jox ko cent mu def bi après jolliwaat ko loo xamante ni ëpp loola maanaam dañ koy ñaraas incha allah quatre mille moom daan ko joxe daan joxe lu ëpp quatre mille encore incha allah quatre mille yàlla. kon jërëjëf sëñ Pathé. di tudd Tafa Bey nekk fii ci Touba Argentine di waajal màggal Touba fii ci di waaw di wax mbokki jullit yëpp nag ñu teew waajal ko bu wér a wér ci bisu sëñ bamba bi wax dëgg yàlla ndax ñun amuñu lu dul suñ bamba waaw ci wàccaay ci lépp ndax ñun ay taalibe sëñ bamba lan kon danoo war a wàccaay wàccaay bu rëy di ci woo ñëpp nag képp koo xamante ne ci yaa ngi absenti rek ñu ngi lay woo ci màggal gi ci bis bi waaw na ñun taalibe Cheikh Ibra yi ñu war a nekk ci waañ bi ci liggéey bi ndax Cheikh Ibra loolu lañ ko xamee te ñun ay Baay Faal xam nga jox jaam yi ñëpp tere berne yeeg yëpp mu mat sëkk waaw naa ngi ziar ñëpp nag di nuyu waa Argentine gépp waaw di ziar waa Sénégal tamit comme xam nga comme ni ñu koy defee tamit di nuyu suñu waa dëkk deman maa ngi dëkk Jogo di ziar ñëpp nag xam nga di ziar sama gaay yéen ñëpp nag di leen wax ne nag Magal Touba ñëw na waaw nan la wàccee wàccee wu nag waaw pare pour lépp waaw ziar ñëpp di bégg ñëpp nag jaa ngeen jëf. ñu ngi dikkaat fekkaat fii ñaar ñu taxaw ñu fas yéene li nga xam ne si ne mooy wàccaayu màggal gi kon bisimilah jëwriñ ñu ngi lay siyaar waaw ku baax ñu ngi lay fay maa yaa ngi am jàmm këram sëriñ Touba baax a baax tur bi naka la man alaaji Fallou Sène laa tudd mbokki fan eh, Sénégal fan Sénégal Ngaay ah Ngaay nga dëkk Ngaay laa dëkk waaw léegi lan nga wax waa Ngaay ak lan nga wax waa Arxantine waaw di santaat sëriñ Touba bu baax a baax rek ci ñaan fekke bis bi ñu ko fekke waat di sargal Serigne Touba bu baax a baax muy màggalam gi nga xamante ni bii ni amuñu lu dul moom comme ni mu ko waxee rek ni ni ngeen fonkee tabaski gi fonkee leen màggal gi noonu. bis bi leen nan ngeen ko mën a fas yéene doxale fii ci Argentine nan ngeen ko war a nan ngeen koy waajale fii màggal nga xam ne si mooy 18 safar ñu dëgmal ko fii nan ngeen ko fas yéene doxale fas ko yéene doxale rek comme ni ko Serigne Touba bëggee comme ni ni ko commencé bu kenn xeet bu kenn yéem lépp lu ñu am rek fas ko yéene def ci bis Serigne Touba bi kennal ko rek. waaw kay kon yow ba tey yow mu mel ne kon bu ma la laajee maam ci wàllu sas yi yi nga xam ne si ne maam ñu ngi ko dëgmal ci nga xam ne si ne murid loolu nan nga ko jàngate waaw man moom comme ni ma ko jàngatee rek man maanaam mbirum Serigne Touba moom man aw ma ci aw sas parce que man bu nee 4000 su ma mënee 50000 sax def. waaw ndax Serigne Touba moom lépp lu waay def ci bësam bii nii moom nga ko ci defal parce que Serigne Touba liggéeyal ku dul yàlla yonent bi. la. kon jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf ñu ngi sant bu baax baax bu baax a baax. waaw ba tey ñu fekkaat mbokk taalibe nii mu taxaw ah, tur bi naka la jawrin Bàcci Diop lañ koy wax. Bàcci Diop mbokki fan. mbokki Saalum ngin ngi neew. mbokki Saalum ngin ngi neew. waaw kon ngeen ngi neew tey jii ak waa nga xam ne si ñooy Touba Argentine. di leen wax ne ah, Argentine moom mi ngi nii rek di waajal bis bi rek bis si Ahmadou Bamba bi rek. comme ni mu ko waxee woon rek comme ni ko suñu wasila waxee woon rek sëñ Saliou Mbacké. ne bis bi lu si waay def lu ne rek bu koy yéemu suñ borom moom moo lay borom bis moo lay fayal boppam kon nag ñun bis moom ñu ngi koy waaj ñu ngi commencé bismillahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilahi rabbi alamina man moom mel na tey su moo déggee sa kàddu mel na kon yaa ngi waajal màggal gi fii bu baax waaw maa ngi waaj bu baax di ko waaj fii di ko waaj Sénégal yow ci ban nga bokk man maa ngi bokk waa kër sëñ Moustapha basiro léegi su ma juumul yéen seen waa daayira yéen daanaka dama naan la sas yi daje na fa waaw parce que euh, mën na parce que mën na parce que mën na waaw kon leen di woo yéen ñëpp waaw ngay wax sa kàddu gu mujj murid yi di waane mbokki murid yi na ñëpp àndandoo mbokki seen mbokki Sénégal yi nekk fii yëpp ak tubaab yi nekk fii yëpp na ñëpp àndandoo ñu àndandoo jëm fa ñuy defee bisu Cheikh Ahmadou Bamba bi rek ñu booloo doon benn xam ne borom bis bi moom bisam la ku yor place nga tëj sa place ku yor messa nga tëj sa messa ba xam ne bisu Cheikh Ahmadou Bamba kenn du ko kafe kenn du ko ree foofu la ñuy rawante nag waaw ku la fa raw doo ko dab mukk nag. kon ñu ngi lay jaajëfal mbokk mi jërëjëf taalibe yi lii nga xam ne si ne tey ji moom lañ ñëwoon tey ji ngir jëlal leen ko fii nga xam ne si ne moo di onse di mitare kon ñu ngi leen jox dig dajee beneen yoon ci yeneen fànna ci yeneen anam ci li nga xam ne si ne mooy wàccaay di safar 18 safar kon kat mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaar ku ci nekk turam ak santam di leen jaajëfal te leen wax ne ah màggal gi kat ñëw na ku ci nekk xeebul dara ginaar ban nag ba gileem lu waay man defal bàyyiwul kenn ku ci nekk nag daayira ba nga bokk la nga xam ne si moom lañ leen laaj muy sa wàllu sas muy lu manti doon muy bu dee sa côté wàllu liggéey muy togg muy café gaag lépp ah kon mbokk yi duñ soññu kenn la nga xam ne ne mooy ci sa wareef kat damaa jàpp ne bu ñëwal nga ko mën a def kon mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaar di leen màggal di leen jox dig-dégee beneen yoon si télé bi nga xam ne si ne kat mooy Touba TV fii ci Touba Arxantina ñu ngi leen di siyaar te di leen bëgg di leen màggal di wax sëñ Sidi Muxtar Mbacke yàlla na fi yàgg lool Mbacke tànd ak weer di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama Cheikh Ibrahima Fall